ami internet 5 TV nuñ na leen di leen dalal ci seen émission décortique comme nuñ koy baaxoo di defoo saa su nekk tey dañoo ñëwoon rek indi leen les top 10 meilleurs jeunes acteurs yi nga xamante ne moom lañ gën a ràññee euh, fii ci Sénégal. ñun numéro nag dañ koy jox ki ñuy wax nag Abdoulaye Thiam Alliance Tafa nekkoon nag ci série Idole amoon rôle bu xamante ne rek joué woon na fa donte sax rôle bi dañ ko doon jàppe ne rôle bu comique la jaay kafe bi mu doon def noonu waaye nag bu ñu seetloo ci ay waxam rek daan noona di conseiller wala sax di yëdd ñi ci li nga xam ne jëmale na ci wàllum liggéey ak nit ki nan la war a gérer li nga xamante ne rek mooy emploi ñu dem ci numéro 9 wax nag ki tudd Dial Thiam Alliance ñoksu wala sax biram ci. rôle idole bi nak ñu ko joxone ki nga xamantene moy mooy su am rôle bu importance bo xam jué nako fofu xam nga metti na ñu jox la rôle bo xam da nga nek nit nga wara nek ko koo da nga inconsciente nek ko xam da ngay perdre mémoire wara tamit sax nek ko xamantene da nga demoon armée jàkkaarloog sa xarit ñu rey ko sa kanam lolu yaakar na rôle bu metti la bo xamantene nit war nako ko ci idole ci dikon tamit mu joué fa rôle bu très très très important ndax fofu dafa utiliser euh, xam xam manam intelligence am puy def yenn yenn kaay wala sax di def yenn actes yi kooku tamit euh, moo tax ñu daal di ko choisir jox ko le numéro 9 le numéro 8 nag ñu gën ko xam ci Mouhamed Bamba Camara alias Tafa Sarr nekkoon acteur principal bu dikkoon nekk nag jeune talent bu dëkk fii ci Pikine mun loolu muy def nag moo tax ñu nemee woon ko acteur bu gën a xarañ ci année bi moom it nag jeune rôle bu important parce que neexul nekk jeune ñu jox la rôle nga joué am ñaari jabar yoo xamante ne jubóowuñu wala sax kenn ku ne gis sa morom war a nekk koo xamante yaay intermédiaire bi wala jouer rôle boo xamante yaa leen di jubóole ñu ànd kooku nag mooy Tafa Sarr ñu dem le numéro 7 nag du ma leen ko présenté je pense que sénégalais yëpp ñoo ko xam muy Pape Omar Diop Alliance Pod nekk acteur principal moom ci Pod et Marichou nekk boo xamante ne affaire cinéma moo a jóg ndax buñ seetloo sax bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy yóbbu cinéma wu a sori kooku mooy Pod nekk koo xamante ne tamit rôle Pod et Marichou joué na ci rôle bu gën a métti ndax lu ne dégg nañ ko fii Sénégal pot dafa yambar pot dafa nekk nii nekk na waaye ma gis ne pot moom moo nekk na jeune boo xamante ne jàng na am na diplôme yi mu war a am génn na nekk koo xamante ne lu mu bëgg rek mooy jëmmale aar ak li nga xamante ne mooy série fii ci Sénégal kooku mooy Pape Omar Diop ñu dem la numéro 6 euh, nag ñu gën ko xam Kader Gadji nekk Kader bokk ci maîtresse non mariée alias Biram yéen ko gën a xam ndax Biram ay feemam euh, ak manière yu muy def nag je pense pense que sénégalais ñoo ko gën a xam ci série bi nga xamante ne mooy maîtresse doon na Mariam moom nag moom ki nga xamante ne mooy Mariam Dial ñoo bokk ndey ak baay nekk ñoo xam ne ay métis lañ métis marocain lañ nekk fii Sénégal seen yaay doon sénégalais seen papa nekk marocain moom it biram bokk na te ñu gën a ràññee ci wàllum série waaye tamit rawatina ci yenn manière yi nga xamante ne mu ngi koy amale ci série maîtresse doon na Mariam le numéro la ñuy dem il s'agit de Eric ñu gën ko xam Alliance Samir nekk koo xamante ne acteur la tamit bokkoon ci Pod et Marichou nekk benn chrétien boo xamante ne gisoon nañ rôle bu mu joué woon nag ci Pod et Marichou daan na sol ay yére julite moom tamit bari woon nag rôle boo xamante ne def na ci pexe yu métti yoo xamante ne moom ak xaritam boobu xamante ne luñ doon fexe rek mooy daanal ki nga xamante ne mooy pot waaye tamit joué na beneen rôle boo xamante ne dañuy daal di raxas li nga xam ne mooy xaalis bu ñuul ngi rek muñ cee am xaalis kon nag ngeen xam ne moom mi doon na koo xamante ne mun na li mooy def nag ndax rôle bi kuñ ko jox ku ne rek def teg ay deal eh, ci lu ñu gis nag ci série Pod et Marichou ñu beneen numéro bi mooy le numéro 4 mooy góor ba ñaa ñu gën ko xam ci Malick Ndiaye nekkoon journaliste ku gënoon sonn ci idole joué boo xamante ne actuellement ñu bëri ci journaliste yi loolu la ñu daj fii ci Afrique rawatina fii ci Sénégal ndax dara gënul métti ñu ne la danga dee te deewoo nga daju daal di dencu benn place boo xamante ne doo génn benn yoon dangay nëbbatu te doon te sax ñi nga xamante ne ñoom nga doon xeexal ñu ngi doxoo seeni soxla mu joué rôle bu gën a gën a gën a am importance série bi di idole waaye tamit ñu gis nag maîtresse de na marié nekkaat na foofu beneen un homme boo xamante ne à multiple facettes fee actuellement ci maîtresse mu ngi nekk foofu ab docteur koo xam ne day faj gis nañ tamit jafe-jafe yi nga xam ne mu ngi koy jànkonteel foofu moom ak jabaram di dalanda kon nag xam ngeen ne malik Niang nekk na nit koo xamante ne mën na jouer ay rôle yu bëree bëri kon nag loolu tax ñu jox ko numéro 4 ci top 10 meilleur acteur yi ñu tànn fii ci Sénégal ñu wax la numéro 3 nag soxal ki nga xam ne mooy xam Mouhamed Silla alias Momo kooku tamit buñ koy wax yaakaar naa bari na ci jeunes yoo xamante ne dañ koy jël comme idole parce que moom dafa jël rek ki nga xamante ne mooy euh, Thomas Sankara def ko muy idolam d'après lu ñu gis ci Pod et Marichou moom la jël pour rek def renaissance africaine lépp lu mu doon xeex rek mooy revaloriser li nga xamante ne loolu la africain am revaloriser li nga xamante ne moom la suñu maam yi ak suñu mag yi suñu dirigeants yi nga xamante ne dañ doon xeex ndax Afrique jëm kanam rôle boobu la joué ci pot et Marichou nekkoon nag jeune bu engagé mu doon nag rôle boo xamante ne c'était pas aussi facile mais gis nañu géré na ko jusqu'au bout ñu wax nag ci ki nga xam ne mooy Omar Ndiaye alliance Omar Ndiaye ci mbégteel kooku tamit Omar gis ngeen ko nekkoon acteur boo xamante ne gën na siiw ci mbégteel xëy na sax jamono yi gisatuñ ko ci yenn série waaye moom tamit joué joué am na rôle boo xamante ne euh, joué na ko foofu noonu ndax gis ngeen ko dund na euh, am seexam boo xam ne daf ko reer gisu ko mu nekk di ko wër ak yenn métital yi nga xamante ne tamit mu ko doon daj loolu yëpp nekk rôle yoo xamante ne neex na pour nit joué ko kon dañuy gis na rek ñoom seen rôle yu ñu ci jox xëy na dañu am engagement wala sax dañoo paré ngir yobbu li nga xamné moy art ak culture wala lepp lo xamné série la cinéma africain fu jëm ci euh, kanam ñu jéxalé ak le numéro 1 na ñu gën ko xam ci Babacar euh, Wali euh, alliance Chérif Mal Chérif nak bo gisé ñu jox ko rôle bi xeyna idol mo gëna gën tax ñëpp gën ko xam mu nekk nit ko xamantene day dem jusqu'au fond lu muy def da ciy dem ba jeex gis ngeen na ko xamantene param yi am nañ xaaliss muy dund dund bu neex mu jéki jéki ay non feul ko yobbu ko ci àll sonnal ko toroxal ko def ko lu fa métti mu ñibbisi ay fàq man for ko yóbbu ko mu perte connaissance ñooñu di ko jàppale ba mu dellusiwaat nekkaat ku mu nekkoon mais donte sax loolu am na ko taxut mu nekkaat à jour parce que am na lu bëri loo xamante ne perdoon nañ ko kon nag rôle bi mu joué ci idole gis nañ ne du nit ku ne nag moo ko mën a joué ndax ñu yóbbu la ci àll toroxal la def la yéen ni nga nekkoon ko am jékki-jékki amatoo ñàkk sa parent sa yaay nekk fi am perte de connaissance loolu tamit rôle boo xamante ne c'est pas facile wala nag du n'importe qui lañ koy jox loolee tax nag ñu neme ko le numéro un bi nga xamante ne moom moo gën a euh, xarañ ci top 10 bi nga xamante ne moom lañ tànn tey def ko jox ko téléspectateur wala sax internetu 5 TV kon mbokk yi nag euh, lii moo nekkoon nag luñ leen indiloon tey jii si top 10 meilleurs acteurs jeunes yi nga xamante ne moom lañ gën a ràññee fii ci Sénégal euh, dañu def dara rek di leen jaajëfal si déglu beeg ànd beeg 5 TV ñu leen di jox dig daje ba ci beneen numéro décortique bu soxale yeneen actrices yi gën